salaamaaleykum mbokku internet yu IYAT TV nañ leen ziar leen ñëwate ak yéen ci waxtaan yi nga xam ne tàmmaloon nañ leen ko di ci ànd ak yéen jamono bu nekk ak Serigne Modou Astou Mbacké it ngeen ko gis euh, fii ci IYAT waaye mën nañu wax le retour de Serigne <laughs> euh, fas yéene ñëwaat ak euh, yeneen i waxtaan ak tamit yeneen i chronique yoo xam ne comme ni ngeen ko tàmmee gisee ci moom tey nag dañu ñëwaat. ci fi ñu doore woon cosaan muy ci suñu siis bi mhm. fas yéene cee defee li nga xam ne moom mooy suñu première numéro euh, siiw yi ak yeneen yeneen yoo xam ne mu ngi suñ kanam dañ koy bàyyi mu nuyoo balaa ñëw dugg ci biir waxtaan bi bisimilah sëñ bi. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Fallou maa ngi leen nuyu bu baax di la siyaar bi euh, nga dikkee ci kër gi rek nuyoo sëñ Fallou nuyoo bi def tax na ma rek sama xel dañ ci ndeysaan patriote yi ñëwoon ci biir réew mi daanu topp ak bitim réew. Mm-hmm. xam ni daanaa la woo sax pour war a wax man dafa ñëw gaaw. Mm-hmm. ñu def al istidraaj ala naas daf dabaatal nit ñi. Mm-hmm. balaa leen a saytaane fëkk wala ñu mu jaxasoo ba liggéey bi ñàkk dem fa mu war a dem te mbiri kat amoon naa ci yaakaar lool ma la ko daan waxee. naa la wax ne daal deux mille vingt quatre moom Macky Sall mënul tudd dire suñu réew. dootul am kon nag xale dal na fi di dëgër ma la sama yaram daw lool ma la gisaatee sama xel dafa dem fu sori ba tax rek ma ne la nañ jël suñu sees ba. Mm-hmm. teg ko fa ñu ko daan teg solo ni ñu daan solo ñuy waxtaanee nañu daan waxtaanee fas yéene itam loolu walaat liggéey bi delloo ko ci fu mel ni fañ ko tegoon ci njëlbeen mooy li ñuy wax procès bi. soo ko dee présenté nit ñi mu toll ci ay difficulté hmm. ñëpp nag bokkandoo ko ñu ko si biirandoo muy la ñuy wax le soldat silencieux maanaam ñi nga xam ne de combattants silencieux gën a bari fop ñi xam ne ñoo nekkoon ay combatant yoo xam ne dañoo jën nekk ñu affiché wu ñu xam leen dafa daal na combat bi kat fu mu yegg man dama gëm ne ñun ñoo ko fa yóbbu la nga dajeeg nit man la am nga mérite da nga dajeeg nit maan la ba ñëpp noppi yaa wax ak waa yooyu rek damaa gis nit ñi ñaari aw tàgg la rek bu mel ni yàlla daan tàgg saxaaba yi alayhim asalaatu wasalaam ba mu ne muhammadun rasulullah wallasina maahu sujjadan man de bi yàlla bi moom ñu mu àndal ñëpp ñu baax la ñoo xam ne saa yoo leen gisee ci seen biir dañuy yërëmante di bëggante ñu daje ko bu yee farfaagaagal ko tàgg di tàgg ba ca mujj ma ne ahadallahu lahu maxfiratan wa ajran azima loolu day nuroo tàgg wi ñu nit ñiy tàgg rek waaye tàgg bi ngeen ñu tàgg teg yéen yéeneen a yéen nit ñi ndax ngeen gën ca yey mooy yéen seen temps yi ngeen daan yàq ngir ñun seen connexion yi ngeen daan yàq ngir ñun waaye loolu lépp sax nag jàpp naa ko muy lu tuuti ci la ngeen def ci combat bi mooy doyloo ngeen ñu doyloo ba nga xam ne yéen ñun bu ñu waxee rek ngeen ne alhamdulilahi rabbil alamin dafa am bis jenn waay woo ma téléphone ci jamono yi digg bi coole ci jafe-jafe barki sëñ Tuubaa loola ba tey mënu ma ko fàtte sëñ Fallu hmm. mu ne ma man kat dama problème dafa am ñu ne eh, danañ jàpp Sonko du jàpp Sonko wax ci coole bëri na yàlla yeeg YouTube yeeg yëpp du dox ma ne man daal liy jàll yëpp du ma ci déglu kenn du ma ci déglu fenn du ma ci déglu ñenn man daal sëñ Moodu laay xaar ba xam lu mu wax man lu mu wax ma jàpp loola. nee na waaye day sax dix minutes bu ne ma génn sama téléphone tàppe la maa ngi ci liggéey maa ngi ci train dama dugg ci train di dem ñu dem ba train bi sori maa di tàppe waat xool gis la nga xam waa ji Allemagne la ne ma seetaan nee na ba la gisee ma takk samay écouteur di la déglu ma wax ba daaneel ma ne lii rek mooy day am xam nga ne googu doyloo ak googu kóolute ak yaakaar ju toll noonu ki ko am ci yow war nga xam ni kooku. mbir yi tanewoo ko ci mënoo ko ci rawoo ko ci ganoo ko ci ma dama faral di wax ne maa ci sonn maa ci defoon dama ci daj ne ma ci fi ma ci féete yooyu yëpp képp ku ne xalaatee rek sam xel rafetul xam nga lu tax sëñ Fall. ma mm-hmm. gis nga boo àndee ku nit sëñ Fall juróomi nit ba àndoon ak am di ko di xeexe ba yàlla dogal ñeent ña nga ñibbisi. Mm-hmm. booy nettali jalooree xeex ba ndax danga nga tàgg sa bopp. man loolu xel xalaatu mooy ñun combat bañ koy def dañ ci àndoon ak nit. Mm-hmm. bañ ba ca géew ba am ñu fa des ñu ñu ñibbisi. bañ demee ba ca géew ba am ñu ci seeni soxna tas. Ah. bañ demee ba ca géew ba am ñu ci seeni doom sax de am ñu ci sax jëlee ay laago am ñu ci sa ñàkk seen liggéey am ñu ci génne am sax ñu ci tëj ci kaso bi. Ah. boo doon lim daf fi ngay fanaan waaye ànd ak ñooñu ñëpp nag boo rek ñu ci dee ñu suul leen ci bàmmeel ñu ne ñun kat xam nañu ne sax lii du ñu fekk waaye yéen procès bi yëkkat leen fu mu suuf loolu moo niroog li yent euh, yent bi li Abubakar ni Siddiq nesan Sayyidina Aisha radiyallahu anha daf ne man day xasootu Uhudin fekk mu ko waaye daanaa fekk lu bari ci sama baay mu di su ma saa wax rek xam nga Talha ibn xam ngeen ko hmm. mu ngi des ca xare boobu yi Abubakar day ba jógee ci ba nee na wallahi alxasatu kulluhu Talha nee na xare ba lépp Talha ko xeex nesan daal di ko daal di ko way naa ko yaatal xatab nu xabe no ubaydillahi mahdiratan boo yow Talha doo wax ubaydillahi sa maandu ko rafet na sa njàmbaar gi wér na sa dëgg jiw yiw na sa saxiitam sa malaayika yi sa kursi yëpp seera nañ ko nee na daal saa yoo musaa tudd Talha rek mu ne kulluhu Talha moom Aysatu Aysatu bintu Abi Bakr Siddiq te Talha boobee rek dafa des ci Uhud kon combat bu dee kenn am na ci mérite ki nga xam ne togg na ñam bi ba mu ñor te amaana buñ koy lekk da ko fekk du ci am lu dul aw tàgg kon ah te fekkewu ko te fekkewu ko te du am lu dul aw tàgg kon kat aw tàgg mm. soo ko nit dee yeyoo ñooñu ñoo ko yeyoo ko suñ ko waree tàgg nit ñooñu ñoo ko war a tàgg moo tax nit ñi nañu équilibre nañu am ay sentimental ci ñuy faatu nañu bàyyi xel ci li weesu te xam ne rek mbir yi kenn moomu ko ku dul yàlla waaye daraja ji kenn daraja ko ku dul way dee. Mm. wasalaam jërëjëf euh, Serigne Modou ci introduction bu am solo boobu euh, damay ñëw rek euh, ci li nga xam ne moom moo nekk actualité tey assemblée nationale commencé nañ li nga xam ne moom mooy liggéey bi ñu war a def ngir defaraat li nga xam ne moom mooy règlement intérieur bi ci fàttali Ousmane Sonko premier ministre dafa waxoon ne déclaration politique générale am balaa mu ko def il ñu defar li nga xam ne moom mooy règlement intérieur bu assemblée nationale. député yi nag jublu nañ ci loolu tey commencé nañ première partie bi dem na ban jàngat nga def ci loolu nga xam ne mi ngi mi ngi xewu jamono bi ci assemblée nationale. Euh, loolu jàngat la wu gàtt wane xel jant. Hmm. assemblée bu dee ci information yi ma am wér na. parce que naan la lañ koy tas. bu dee wér na waaw treize pour cent. Hmm. bii la ñëw lañ koy tas. léegi nag bu dee assemblée bu lu ñuy tas la kon mën naa am ñu defaraat règlement lañ am sañ-sañu tas ko wala ci lañ koy tas day mel xam nga dafa dafa laajoon avis ci conseil constitutionnel hmm. conseil constitutionnel ne ko lu treize boo ca àggee bu la neexee sañ ko ko tas xam naa ne la basir le président bu ko weesu pour tas ko hmm. kon boobu assemblée mel na ni mi ngi def li mi ngi tiiree li ñuy wax hmm. ambulance perdue ah. loolu lépp nag man dama ko yàgg wax sañ Fallou man duma Pastef du ma ci misaal dama cee dool sax du ma Sénégal dégg hmm. man du ma Italie ma France man Sonko la hmm. man. Ah. du ma Pastef du ma Sénégal man Sonko la hmm. Sonko moom ma doon nag man sañ-sañ bi ma ci am xalaat bi ma bëgg. man ne bu doon mën a man assemblée bi nit dul def. waaw doon mën a man du ma fa taxaw. lu tax lu wax ñoo xam lu ma wax moo xam. lu ma dem ba wax moo xam lu ma lu lu wax moo xam xamul nga lu tax. Hmm. mu mënu maa ne cim réew mi dund ci réew ma di as gor set wecc samay jëf set wecc ma jëf nag jëf joo xam ne nit mën nañ ko teg ci place di ko waxtaanee mooy liggéey jaar ci milliard fukki at ak juróom lancé défi ne musuma lekk seen fukki deram adduna juróom-ñaar kenn waxut kenn waxul ne lii dama jëlee ay ne dajaloo def benn bloc benn coalition te député yooyu ak seen i kii dafa bokk ci mel na moom amuti doom mel na moom mel na amuti ndey mel na amuti baay mel na amul ay nawle ñu ko def ay plateau télévision ñu ko ay plateau seen seen du YouTube ñu ko def lu leen neex di ko yóbbu fane di ko yóbbu di ko traîner à la justice di ko brutaliser di ko maltraiter muy même équipe boobu man équipe boobu laay dem di leen fekk assemblée a ki ma doon tay te bokkut ak ki ma doon dégg man maay man du ko def lu neex waaye na def man benn objectif laay am mooy li sax sénégalais teg ma fi man ci loolu laay Sonko. dégg ngeen bàkku fi nit ñi amoon daan ko bàkkee Sonko mooy man ba mbir mi tàmbale am na ay nit ñoo xam ne ay kilifa lañ boo ma ne ma waaw sawaa ji su bokkulee su ne diw kenn ko wateel ndax mën naa jëmale nit ñi boppam waaye mënu ko ci kanam rek mën na yéen xamu leen li wax li ngeen di wax xamu leen ko su ngeen ne yéen sonk su ne jëm leen ci barab sàngam man ne pas-pas bi ma am man bu ko ñëpp amee. Mhm. sëñ Fall pas-pas bi ma man su ko ñëpp amee personnellement man man dama gëm ni. maanaam bu ne woon jëm leen ci sëñ Fallou toog ci la ñëpp jëm bu ne man foofu laa taxaw Macky Sall dama ko moon aytu Macky Sall Ba ma ne kon man aw problème maanaam Sonko di teg Diomaye Faye boo xam ni amuñ benn différence li ma Sonko wax ci moom laa gëm ci moom te la wax ci moom ba mu ba day gisuma ko dindi bu set may gis lu gën a wéral ay waxam moom la président la République Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. ndax ko dem ba toog ci siège présidence amugo fa quatre mois amugo fa cinq mois di wax ne am na fukki at di xeex ngir mu nekk ngir mu doon président la ba tey man ma des fii ba tey juguma ci dañu ma ci xam nga kooku as gor gor kenn mosu koo gis. gor kenn mosu koo gis ci àddina tool ni Diomaye Faye kenn mosu koo gis dama bëggoon naa ko téeméer waaye bu mu ko waxee bëgg naa ko jëmee parce que gis nga nit xam nga luñ koy luñ koy fonke kaddu mais kaddu goo xam ne jamono ba mu koy wax kaddu googu rek mooy kaddu kaddu président de la république mooy kaddu jiitu président la république bu dee kaddu itam doyut kaddu bu nekk ci ginnaaw président de la république itam bu dee kaddu yu waaye kaddu institution en tant que le père de la nation. Mm-hmm. nga wax say wax nga mu waxee ko noonu nag. Mm-hmm. kooku Sonko moom moo xam moo xam li tax moom mu tànn ko. xeex naa dix ans ngir euh, def ko président def ko président. du du du moom sa bàyyi li fekk doonu ko. maanaam moom nag ñoo bokk ci position boobu maanaam moom man. Mm-hmm. suñu fàllu. man man do ñëpp laa koy seeral. soobee yàlla ak yonent bi incha allahu taala ma bàyyi Sonko nekkul président de la république. Euh, léegi nag. waaw assemblée bi ndax ñoom ña ngay defar seen règlement intérieur ak seen règlement nga duggaat ci assemblée bi li nga wax léegi ci euh, président Ousmane Sonko warut a dem ci assemblée ah, nationale warut a jàkkaarloo ak ñooñu mais naka lañ mën a comprendre ñoo xam ne euh, suffrage bi élire président de la république moo leen élire ñoom Sonko ñu nommé ko na xam ne président moom moo ko nommé nekkul koo xam ne askan bi ñoo ko élire. ndaka lay mën a ëppalee boppam taxaw ci kanamu député yo xam ne askan ñoo leen voilà xam nga xam nga day sax élire nañ ko. Hmm. comme ni ñu élire ni ñu ko élire nañ comme ni ñu élire président de la République. Ah. mais dañoo jalgati loi. Hmm. comme ni président jalgati woon loi su bëggee jaar fu dul foofu dafa mën a jaar. waaw ah. xam nga ñoom Sonko fi ne nii constitution moo koy conduire ba guddi tey mais du assemblée parce que règlement intérieur ba assemblée nationale. Hmm. amatul àtte Sonko euh, actuellement ci guddi yu ñu toll ba waxtu yu amagul ci moom sañ-sañu dogal constitution bu Sénégal moo ko ne. Hmm. da ngaa war a dem ci député nga def sa déclaration politique générale. waaw déclaration politique générale boobu nag néew ko ci benn diir nga koy def wala ci kanam député sangam nga koy def wala ci assemblée sangam nga koy hmm. boobu nga xam naa ne tey moo bëgg Sonko ñëw ci kanam bu fekkee mi ngi discuter ngir defar li ñuy wax règlement intérieur am ngir ngir président Sonko mën a ñëw def déclaration politique générale seen kanam. Hmm. ba xam nga ne bis bi ñu defaree ñoom loi bis boobu ci la ñuy wàññi ne. premier ministre bi taxaw na nekk ko assemblée reconnaître mu reconnaître assemblée lu waaye reconnaître boobu bis boobu nga tàmbali balaa mat trois diggante bi trois mois deux mois dañ ko may nga xam ne ko maximum ak minimum. Hmm. mooy lañ ko wax bu mu wees trois mois. assemblée mënul dafa am trois mois kon moom tënkatul Sonko ngir Sonko dafa déclaration politique générale. waaw tënkatu ko. Hmm. moo tax ne bu doon mën man li ma yoon may même bu ñu ko voté tey mu bal fii ak le treize seen mandat jeex ah. Hmm. le reste de mandat jox ñu dissoudre leen. Sonko am na yeneen am amaana yeneen chance même bu fi nekkoon du si duru lañ du si duru lañ leen am na fi fi fii ba euh, octobre novembre décembre am am na chance pour décembre mu doon def si police générale mais le fait que ñoom defaraguñu loi bi même bu ko defaree tey loi bi maanaam balaa Sonko deleem di jot biñ ne ko mënuloo ko weesu ba nga def déclaration politique générale booba day fekk assemblée bi day faatu moom. Hmm. bàyyi bi nga xam ne ci misaal. jabaram dafa ëmb. mu am ñetti weer mu faatu mën naa fekk mën naa fekk ngénteel doom ja bu ko fekkee waa assemblée bi moom bii fi nekk nii. Hmm. bu fekkee ne gouvernement bi ñoom farlu nañ ci def la ñu war a def. Hmm. déclaration politique générale bi Ousmane Sonko ñii duñ ko fekkee. xam nga dégg nga ku ne Ousmane. bu fekkee liggéey ñi liggéey gaawal nañ ko. buñ ko gaawalee. est-ce que ci diggante bi tamit. dañ ko gaawal ma bu fekkoon dañ ko voté du tey du tey quinze. tey tey le seize. suñ ko le seize. le seize septembre ah. seize octobre novembre seize seize décembre. Ah. mooy dernière date limite bi nga xam ne Sonko bu na loi buñ ko buñ ko validé woon tey. Hmm. te ñoom la treize bii di ñëw dégg nga. Ah. octobre bi ñoom ci lañ jeexal ñoom bu fekkee gouvernement def na liggéey. Hmm. président de la République bu leen dissoudre le treize bi ñoom dañuy jeexal. Hmm. le treize nag ñoom bu ñu jeexalee cest mooy ba tey maanaam doom jooju ñuy way déclaration politique générale ci premier ministre. ndaye mi ko ëmb te imbeegu ko kon bàyyi du fekk ngénte la. ñeneen lañu ñeneen kay lañuy wax ñeneen ñooñu suñ ci yeggee di dissoudre assemblée bi premier ministre buy def déclaration politique générale ci ñan la koy defee boobu assemblée amut ci duñ jëm. Hmm. organiser élection buñ organiser élection assemblée boobu di ñëw nag Sonko mënul munul jaar fenn ba du fa dem soo baax ku ñu fa nekk muy sansam mooy dégg nga ko ne moom bu dikkee dama ko fiirir. waaw dégg nga loolu. léegi loolu mooy réew loolu mooy nu réew. baat bu bu député taxawee ne da ngeen ko bëgg a lekk tamit. loolu loolu réponse la tamit. représailles sax d'accord naa ci nag. waaw ah. waaw bu na ko bëgg a rek. Hmm. effectivement loolu sax njuumte la moom. Ah. maam jàkkaarloo xëy naaw la di utiliser baat boobu d'accord naa. Hmm. loolu moom erreur dëgg la. Ah. mais mais man man damaa defee ne man ci li Alxuraan wax te yonent bi wax wax ko te mu leer. Hmm. mooy nit ki idfa billati hi ahsan fa izaa llazii baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyyun hamiid nit bu fekkee da ngeen am ay malcontentieux ay malcontentieux nga gis na maam ay position toujours day day négatif nee na yow fexal bay positif parce que yàlla daf ne alaykum anfusukum laa yadurrukum man dalla izaa ihtadaytum ilallaahi marjiukum jamii'an na yunabbi'ukum bimaa kuntum ta'maluun daanaka dénk naa leen seen bopp ngeen xam li ngeen di def ak li ngeen di wax li ngeen di jàpp ak li ngeen di bàyyi lépp fexe leen mu jaar ci yoon bu ngeen ko defee yéen ki ne ci lu dul noonu du leen wàññi dara li ngeen bëgg ci lu baax di ngeen ko am li ngeen di ngeen ko kon du responsabilité tam damaa wax nangam am na ko koy delloo du ci nit malgré nag am na ay am na ay règle yu organisé loolu ne bu nit waxee nangam def la nangam ah. man hmm. nga man nga ko def lu toll la lu def loolu fekk nañ ko ci kitaabul la hmm. fekk nañ ko ci ba am ñu bari ñu ko tegtal waaye gis nga loolu dafa nekk dañuy wax dañuy alxatfu shaani ci ñu jàngale balaax hmm. maanaam deuxième position la ci jëf yoo xam ne yàlla def na la bu fekkee ne i daa jël saw juróom bul jël juróom benn mënoo baale jëlal juróom ni na waaye na xaaxibtum fa xaaxiboo bi misli maa xoqabtum bi fi nga xam ne loolu gën a lut yàlla mooy bi mu ko wax yonent bi dafa xam nga yonent a dafa wax dafa jégg dayoo ci li wax dafa daf ne ñii liñ def sama baay rey ko su ma jëlee bu ma leen jekkoo dinaa leen rey rey gu toll na gën rayoon a naa leen rey ba def leen nangama naam yéen yàlla ne ko ah, waaw léegi yegg nga ci niveau bëgg a fayantoo d'accord waaw yow dañoo sa baay bu fekkee mënul ñàkk sa kenn gis kenn seen baay nga rey ko ko te loolu sax nag amul solo hmm. wasbir bàyyil mu sàdd loolu laa bëgg man te ki lay ki lay baloo mu sedd wama sabruku illa billah kenn baloowu lu mu sedd ku dul Yàlla waaw wala in sabartum maa ngi giñ bu fekkee muñ ngeen loolu xayrul saabiriin dafa gën ci toog di ndax ndaman muñ ku guddul muñ loo ko xam ne ko wasbir muñal wama sabruku illa kenn muñ loo na ku dul sa Yàlla ku dul Yàlla sa borom wala taxsan alayhim garawut nii muy demee nga am ay defat tey yow ëllëg sa moroom wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas wala ne Abu Sufyaan naan al harbu sijaal te yow ëllëg sa morom loolu rek moo tax tey jii nga jàkkaarloo ay noonu di am ay defet mais defet yooyu sax du ne dama laa jubloo toroxlu wala dama laa jubloo manqué na déedéet ma rek ngir mu raxas sax seeni bàkkaar amaana. Mhm. kon loolu du régal général xat usaani la léegi nag li gënal moom bu nit defee loo xam ne wala mu jëflante ak jëflante boo xam ne bu leerul la nga seen ne gën a rafet gën a baax nga def ko mooy li ñu jàng mooy li ñu xam. te ah. Ousmane Sonko façon am na ñoo xam ne nag waratu leen a fekk assemblée réew mi dañ ko war a tabax ci ak nawlonte hmm. ci ak nawlonte mooy ñu woo ñëpp nag ci wax lu baax ak def lu baax ñëpp nag mu ngi ci génn kenn. Hmm. ñu ñëpp ci gont xëy ju lu baax ak gont ci lu baax ku ko man nga bokk ci kuréel gi ñu doxal réew mi ku ko mënul nag nga abal réew mi ñi naan ñi loolu ñu di ko doxal man loolu laa gis personnellement. Hmm. léegi da nga bëgg wax ne ci euh, réforme bi nga xam ne ñu ngi koy def ci euh, li nga xam ne moom mooy euh, foofule ca assemblée nationale muy règlement intérieur bi defar gi ñu koy defar kon bu fekkee ne dañ ci jublu ko Ousmane sunko mën a ñëw loolu defar gi amul njariñ tamit. am na njariñ xam nga tax mu am njariñ. waaw mooy règlement intérieur bu assemblée nationale nga defar ko. ba mu premier ministre ñëwee. mën a def déclaration politique générale loolu baax na. waaw ñoom ñu koy defar nii man naa leen bañ amal njariñ te man bu doon mën a dinaa ko doon amal njariñ ndax itteelu leen ñoom ñu koy defar nii ndax ñoo ko yàqoon ñoo ko ñoo ko yàqoon ngir seen intérêt bopp kon buñ koy defaraat xam nga ñu koy defaraat ngir hmm. seen intérêt bopp ñoo ko yàqoon ñoom ngir Macky Sall ngar daj ñu wuuf pouvoir bi hmm. di xool ndab li di xool kenn ku ne tibboo tibb nu mu toll bala ngaa seex wan ko mën na sexal bo ëppee mënu la wàññi boo tibbee wula tibb wa illaa yéen wula tibb mën a la tagal ñoom ñoo ko wote woon ngir seen leader. Hmm. am position yu dëgër contrôle Sénégal ngir mën a am troisième mandat. Hmm. ñu loolu tax ñu dindi woon ko. bu ñu demee ba ba nag ba ba di ko defaraat xam nga fu ñu ko teg nañ am am Ousmane Sonko koo toroxal. Ah. nañ am am Ousmane Sonko. Hmm. ngir man koo néewal doole am ngir man koo brutaliser. bu fekkee loolu ñoo tax ñu ko defal man Ousmane Sonko li tax may nangu ngir ngir jàkkaarloo ñoom li tax ñu ko nangu te mën a ñàkk nag maam ci pexe politique nag dëgg la. am na ay loi am ay règle aussi loi yi ak règle yi mooy lu tënk Sénégal waaye itam politique politicien loolu ku mu mën a doon ku ne war nga ko def Seydina Abubakar ni Siddiq bi yonent bi nalawee la la mu wax Babacar leen rek la hmm. yonent bi mënta politique parce que du politique ndax ak lantinoor rek la amul problème ci mbir yi nga nit day jaar ci ginnaaw néegam yor gànnaay ba ne bu génnee ma rey ko Jibril ne ko pëkk pëkk mu yow mu ne ko diw sàngam tudd sàngam mi ngi fii sa ginnaaw ne génn teem rey la yonent bi ne ko nu may def mu ne ko xalaatal ci sam xel yàlla tabaxal la xaj nga xiir ko xaj bi na jon mu dem cor ay siisam daal di daal di disparaître encore yonent bi def noonu hmm. ni day dikk di ko tëru mu def nii loo xam ab xaj ab xaj jaar ni daa di nit ki xaj bi daal di disparaître nag Babacar nag ma loolu mënuma ko man xam nga lan laa man politique rek laa man hmm. calcul mbir yi di dox ci xel nit ñi pour orienter situation yi ngir mbir yi dox jëm ca kanam problème baña loolu nag li koy maye mooy toog di xalaat hmm? parce que man du ma yónnee parce que man du ma yónnee taxaw ma la xew dañ maa wax rek laa mën a jàpp hmm. léegi aussi en tant que le PM na na xalaatee noonu xam nga gis nga fii fii Sénégal man de dama xam xam naa ne man moom moo ko gën a xam hmm. man li ma jàpp itam moom moo ma ko gën a jàpp mooy ñu nga sëñ Fall nit bu fekkee ah ngaa ne ci réew ci situation yii ñu fal la ci ba tey wuti woo ak kenn ak réew mi dama mi nga ci sur le Mhm. te waxoon na leen gars yi premier tour la ñu di gagné mooy damaa damaa dama fréquenté terrain bi ak Saalwaay actuellement Touba gii gis nga amoon nañ fi daanaka combien euh, xaw ma quatre vingt deux pour cent xaw ma la ñu waxati. am nañ ko wallaahi bu élection amaatoo ñu am quatre vingt dix hmm. que waaw parce que ñi doon ñi doon am ci ñoom du. Hmm. ñoom dimbale nañu ñoom ci seen i discours ak seen i doxalin. Hmm. wax ñu dañoo mas a taxaw am na ñu bari ñu may wo après dama ah, man de seen waa ji jomaay gis naa ko. ah man de mi daal sama xel. man de ni mu def sëñ Muntaxa moom. dal na sama xel man de ànd na maa moom mbooloo bu dul jeex laa am ci loolu kon de saa kooku ñu lay dimbale aussi itam lim ñu gën a dimbale mooy euh, président Sonko. gis nga seen ngi ànd ak euh, ci li ngay wax ni ministre euh, Cheikh tiijan Dièye bi yor wàllum ndox mi ak assainissement maire Touba moom moo koy seedeel que ni loo xam ne problème mu trois ans la yoo xam ne régime yi fi jaaroon. càmmat nañ leen ko ñetti at yoo xam ne mënuñu ko régler moom ci trois semaines la man la man laa wax. man mii ah. wax ak yow maa koy témoin. Hmm. man wax naa ko sama problème ndox yow sama kër gi mas ngaa gis boobu ne muy ma la tijji boo tijjee ma ba ma ko waxee la ko def yabal na fi équipe defar nañ ko. macha boo jógee jaaral fii nga tijji sama robinet bi nga xel. Hmm. sama saal da ngay bi xalaat nga fee dugg di du yoo ndox dugal fi. boo jógee dugg fi. macha kon kooku moom monsieur le maire bu koy wax man maa ko gën a xam. Hmm. ba muy ñëw fii dama fekk booba sax monsieur le maire ñëw moo koy wax itam mu di ko defar. ëppul hmm. trois jours mu defar lépp ba mu ñëw te loolu lañ ko ne a mënta mënta ne. Hmm. te nag ñun bu masaa jub màggal weer. waaw maanaam circonstance bi ñu am ndox sax ci ngay xalaat. Hmm. ñun ñu mën am ndox sax après après gàmm. jamonoy màggal moom paan boo ko amee ci sa forage doo am ndox boo paanu doo am ndox parce que oto ndox yi dañuy jaay ndox te bu ñuy jaay ndox faaw ñu tëj ndox mi xañ ko nit pour man leen a jaay ndox. ay sabotage sa ay sabotage te tey ñu ngi ci presque dix jours yoo xam ne mooy des ci màggal gi ma matatu ko sax nag vendredi la tey ni vendredi hmm. soobi yàlla yonte bi vendredi bay di jëm ci la ñuy màggal incha allah kon ñun ñi ngi am ndox man sama kër boo ubbee robinet bi xel te loolu ñun xalaatuñu ko hmm. xalaatuñu ko la fekk nag loolu ñoom def nañ ko ci diggante bii ñoom ñu ngi ci yoon wa ñu ngi liggéey hmm. te ñu àndoon ñoom ñu koy wax c'est-à-dire ñun sama sama kër gi nii ah. waaw euh, mooy loolu courant bi daa daawul normal parce que tuuti la daan ñëw. léegi yokk nañ ko nga peut être tabax yi ñu def suñu bàddee gis nga ko ñaari réseau moo fi nekk suñ poste courant mi ngi ne indi nañ ko dañ ko daan indi daaw dañ ko tabax war koo indi ñu détourné ko ñu ko indi saam baaru xuraja lañ ci bindee. barki démb ci ndindi ba tey euh, ànd na ma ak ministre Birame Souleye Diop mu fay inauguré benn centrale électrique. gis naa centrale électrique mi ngi toog ci yaakaar naa. combien combien de hectares. deux cent et quelques. deux cent et quelques hectares. kon ñooñu fii ñun ñoom ñu ngi dimbali. Hmm. ñu ngi dimbali. loolu nag ay bilan la sax yoo xam ne. Hmm. maanaam matériellement bilan la yoo xam ne baax na ci économie bilan la yoo xam ne itam baax na ci doxalin réew ak développement. huit cent millions yi ñu joxe ci màggal gi pour hôpital yi. te loolu xaalis la. Hmm. waaye boo xoolee huit cent millions yooyu ñu la wax. yeneen huit cent millions matériel man ki wet yoo xam ne kenn tudd ko. Ah. parce que boo xool déplacement ambulance yi. Hmm. ak matériel médicaux yi indi yi ñu indi fii Touba. Hmm. ak ak ak maanaam maanaam euh, soins yi ñuy def ci hôpitaux yi. Hmm. ak maanaam jëmmi personnel de santé bi ñu fi indi. ak effectif bi loolu képp bu ñu la ko numéro nga doon mënuñ laa wax ñoom mu toll ñoom. ak bonne volonté yi nekk yi nga xam ne ñooy ñëw di jà di jàpp ci liggéey ñu door a génn nag huit cent millions yoo xam ne Touba moom xam naa ne euh, hôpitaux yi danañ yàq bu ñu sañoon bis bu ne muy màggal. ndax loolu dana leen dimbale ci ay crédit yu bari yoo xam ne. am xam ne 200 millions lañ ci daan joxe ñoom yokk ba 800. ba millions. Hmm. kon xam nga ne affaire yi différent na. noonu daal noo ngi leen di sant noo ngi leen di gërëm. ñoo ngi hmm. sant président de la république Bassirou Diomaye Faye. Hmm. di sant le PM premier ministre. ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ñun day sonn nañ ngir yéen waaye fàttewu leen ñu fàttewu leen ñu mooy bi ngeen dikkee ci dëkk bi kenn ku ne seen ngeen wala fenn fu ne seen ngeen la fa yàlla ngeen def ko Mm-hmm. nun day sant nañ leen ñun suñ courant ñëw na suñ ndox ñëw na. Mm-hmm. ah ab tali ab tali rek moo ci des. waaw ah. waaye rajo lépp am nañ ko tali bi xam nañ ne dina ñëw. macha mm-hmm. su ma ñëwee ci grève bi nga xam ne euh, patron de presse yi euh, wala mën na maa wax ne média sax de manière globale amal nañ ko def nañ euh, journée sans presse wala ko waat def ñaari fan yoo xam ne dañ ne dañu boycotté activité gouvernement bi. naka nga jàngatee loolu nga xam ne euh, ñi nga xam ne ñoo waa média bi ñu ko ñu ngi koy amal ngir bras de fer ak état. waaw xam nga média boobu effectivement daa nekk média boo xam ne média classique bu Sénégal la bi Pastef di démarré comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee hmm. xaribun wa sa yahuudu kama badaa fa tuubaa lil kon lislaam bi tàmbali dafa tumuraanke lool fooy lool néew doole lool wa tey xëy mu nekk lu puissant lu am doole. Hmm. te ama daan dana delluwaat ca na meloon waaye su boobaa ñi ko gunge di ko jàppale moom rek ñooy taxe Pastef bi muy démarré Sëñ nan la meloon ba amul benn média bu ko xalaatu ko fiir hmm. ay ay ay ay ay benn média bu xalaat fekk programme boo xam ne waa Pastef ñoo ko organisé ñu koy couvrir mhm. benn média xalaatu ko te yi bépp jabolise bu ñu mën a jabolise Pastef ak son leader dañ ko daan def à tout moment waxtu ne dañ ko daan def. Mhm. def gi ñu ko daan def nag dafa war ne def gi mooy waral ñoom duñ mën a jot ci nguur gi bi ñu koy def nag ñee ñoom Sonko ak le président de la république Bassirou Diomaye Faye nan lañ def. créer xam nga seen boobu ñuy wax jot na TV. Hmm. ak ku mel ne yow. Hmm. créer seen bi ñu wax yaat TV mu liggéey ci liggéey booy. Hmm. ñëpp seere. Ah. ñeneen ak ñeneen kenn ku nekk daal di créer seeni seen. ñu bàyyi mboolem média classique yooyu di wax ci presse digitale bi. presse digitale boobu nag lañ amoon ñoom ñu daan dem di couvrir manifestation yi du dugal parce que booba moom jël nañ mboolem presse classique bi. ba tey bu manifestation amee wala ko xeexam. Ah. dégg ñu fexe ba TFM di teg ay mike mhm. ñu fexe ba 2STV invité yenn scénariste wala yenn comédien ah. ñu fexe ba 7TV en woo mel ne Cheikh Yérim Seck muy banaliser situation bi. Mhm. ñu fexe ba benn euh, Sen TV organisé benn débat boo xam ne wala mooy loolu. fexe ba ba ba ba nga xam ne RTS pour RTS ndox dafay fees dell ñu dem wane place yoo xam ne amul ndox. Hmm. ngir bëgg wane ni maanaam problème assainissement am. état baa ngi liggéey. état baa ngi liggéey léegi nag lii sëñ Fallou moom la presse boobu yi doon def presse digitale bi nga xam ne mooy seen seen yi ne sur le terrain. Hmm. ngir ñu jàpp na ñu maîtriser presse bee problème mënatul am problème mënatul am mooy gouvernement bi fexe na ba téye presse classique ba defeen presse classique bi nga xam ne ci information hmm. information bu ñu ko comme ñu leen jox bu ñu fexe ba joxatuñu ko ñoom dootuñu bi def lu ñu neex ci alalu Sénégal te waa Sénégal duñ ko yëg duñ ci ba ciy def ba ciy jéem dara. Hmm. Sénégal nag ju créé Sénégalais yi créé seen bopp ay seen yoo xam ne ci lañuy jaar pour mën a joxe seen information. mooy hmm. dem nañ ba ñoom di tëj internet bi ngir seen seen ngir seen euh, presse digitale bi. ba ñu tëjee presse digitale bi. tëj internet bi jamono booba gouvernement bi atteindre na objectif bi. Hmm. loolu atteindre na objectif mooy booba. ci tëjug Sonko gi mooy fan yi ñu def moo tax dëkk bi da seraw dëkk bi daal. ñu fan yi ku jiitu tëj te nu mu demee woon dëkk bi tàng jër kon yéen yéen dafa nekkoon comme presse. Hmm. léegi nag yéen soo ba ba benn jamono nag presse boobu nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci situation boobu ba ñooña am nekk ci beneen presse digitale di avancer di avancer di avancer ba ñoo jël nguur gi ñoom ñu avancer ñoom di contrecarrer ba aussi seen nañ doon jàppale ngir ñu jël nguur ñooñu perte nguur. Hmm. buñ nguur ñu ne leen dañ ñoo yéen dañ leen dañ ñoo yóbbante woon ci yéen ana lañ leen yóbbante. yóbbante ab yóbbante lañ leen laaj ñu geraw. Hmm, ab yóbbante ab yóbbante lañ leen laaj ñu geraw. yóbbante la ñu doon. tekkil ñu woo loolu. Ah, bi mooy. Hmm. tey yow en tant que presse. waaw ah. maanaam boo boo amee publicité. Hmm. benn entreprise bu la publicité loo benn produit wala lu mu mën a doon. bu lay verser xaalis bi du ko jaar ci sa compte. jaar ci sa xam nga lu ngeen di déggoo ci misaal. daanaka kon produit bi maa ngi koy maa koy publicité. quatre cent franc. Hmm. ngeen négocier négocier mu ne la kon mën naa la ko defal trois cent cinquante. Hmm. ngeen signé mu ne la da ci teg ñaar fukki dërëm pour état mu ne quatre cent cinquante. loolu mooy TVA. Hmm. waaye waaye boo ko versé quatre cent boo ko versé entreprise bi. xaalis bi boo ko versé trois cent cinquante quatre cent cinquante nga koy versé. quatre cent cinquante mooy cent franc yi moom moo la ko laaj ne la dama la ko wital gouvernement. léegi nag quatre cent cinquante yëpp au lieu que mu trois cent cinquante jox état bi cent Hmm. day jël quatre cent cinquante yëpp def ci boppam. Hmm. su baree ci misaal am Mamadou Mouhamed Ndiaye salaire am. waaw lam yóbbanti woon RFM loolu la waa RFM lànk na du ko jox moom du ko jox. am Bassirou du ko joxoo état mooy Bassirou Diomaye Faye Babacar la Youssou Ndour taxaw na du ko joxe. Hmm. te ba mu ci misaal da koy dinaa la may dinaa la fay cent franc waaye état bi ne dana jël ñaari junne ko quatre vingt a ko ne ko ba nga nee damay publicité entreprise bala joxoon sama 100 francs ak Babacar Fall ma nga daggoon 10 000 ma sama 10 000 100 francs loolu da ko laaj loolu <laughs> <laughs> ni ko argumenté xorom na. ah voilà ah noonu la. Ah, noonu la nag de. loolu doogu la amul leneen am maanaam duñ te mukk fekk am fa suñu fan mu taxaw fii. Ah. ñu ne ko état na nga jox ko 1000 francs déedéet. luñ ma ko def duñ la ko def. waaw nan lay demee mooy IATV dañuy dañ mën nañ koo dagg mais bala ñu koo dagg faaw man dama fa dugal xaalis. waaw IATV nan lañ koy daggati xaalis kenn dugal fa xaalis loolu mën na nekk. déedéet loolu mënul ne. Hmm. borom bitig bu daano ba lëggéeytu dematul dikkatu mu tëj bitig ba. isa dana jékki-jékki ñëw na ko jox ma sama TV wala sama patente. loolu na ko gis xam nga moo tax gars yi buñ ñu fontoo. maanaam hmm. ñun wax bu doxee itam ñu koy dégg nopp yi koy dégg moo war a wér mbir mi nii dong la yóbbante. Hmm. lañ la laaj dafa am benn waay ndeysaan bu tukki woon maanaam mooy li presse bi def de. Hmm. dañ jëm dëkk ndeysaan fekk fa doon di jaayam dama di jaay fekk yaa tàmbaloon kër ba mu raasi mu kuule yor juróom benn million bi doomi ne bi doomi bi bi ñëwee ci dëkk bi moo mu nuyu ko mu boo ñibbi Sénégal maa juróom benn mi ma la ko bëggoon a jox nga yóbbaaleel ma ko baal nga kuule ma sama kër gi ko waaw far moom bi mu ko waxee mu ne ko man fin de mois laay dem mu ne ko waaw. waaja dugg biir dëkk ba di lépp di faj ay soxlaam bi noos na ci hôtel yi mhm. dégg nga ba mu ñëwee ba war a tàggoo di gën a ko ma ma euh, damaa dellu ci Sénégal mu ne ko ah man sax day xaalis bi ma doon bëgg a yóbbu six millions ba nga fi jógee ci ginnaaw suba laa gis dem Sénégal yóbbul na ma ko. Mhm. waa ji moom ne ko yaa ma ko dig ba ma nga nga génn ci. yow yóbbal <laughs> yow yóbbal <laughs> ah nar ci wala jub moom it pourtant kii nag euh, yaa ngi wax ne ab yóbbante lañ lañ leen laaj ñu gërëm waaye Mohamed Ndiaye mom taxaw na carrément wax ne képp koo xam ne wax na ne euh, euh, li nga xam ne mooy tax ñuy grève mooy mbirum impôt impo bu ñu leen laaj li nga wax amul loo loo loolu tamit ni ñu ko mën a jàngatee. waaw Mamadou Mamadou Ndiaye la la weddi nañ ne loolu moo leen traité grève. Ah, ah, benn rakk moo xam ne xam nga ko. Ah? Mm-hmm. xam nga xam uh, borom xam-xam yi. sakaul xaqliyaat. Mm-hmm. ak li ñuy alxaqliyaat. Mm-hmm. ak wasat ak li ñuy wax as sakaul xaqliyaatul wasatiya. maanaam xel dañ ko koo catégoriser ci trois. ba demee ci borom xam-xam yi. ñu ko defee catégorie trois dañu ne xel yi mi ngi dépendre vingt cinq pour cent ñenn ñi am nañ loolu ñenn ñi am cinquante pour cent ñenn am cent pour cent. Mm-hmm. loolu nga koy jëlee ci trois catégories kenn ki vingt cinq la am. vingt cinq ki am vingt cinq. Mm-hmm. moom la wolof di rafetal di ko wooyee am texet. Mm-hmm. dégg nga. waaw dégg nga la wolof di am texet. am texet mooy koo xam ne tey mën na jël débat. di def tanaaxut cest à mooy day wax mais day fàtte. del déglu bu baax Ameth Ndiaye Ameth Ndiaye France bu mu wax. weddalam di kon wax te du te sax du ko bàyyi xel. du ko bàyyi xel waaw. Hmm. ñoom ñëpp rajo yëpp télé yëpp ak TFM ak ña fay liggéey ñëpp nee dañuy def journée sans presse parce que état bi daf leen a sonal ci impôt yi ñëpp loolu lañ wax. Hmm. moom de responsable bi de des presse. du chef des desk. Hmm. doonu li ñuy wax euh, nu nga wax di chef de rédaction. nekkul li ñuy wax patron de presse employé simple la. waaw kooku xaw xamu ci dara. li muy wax itam maanaam daa nekk ci absence ak ñàkk xam la xew. léegi nag moom mi nga gën a dugal gars yi gars yi ñoom nee lii moo lan grève te nee nañ te li ñuy teg teg loolu ci taabal ji hmm. dañ ne li ngeen teg ci taabal li ñu ci li suñ problème mooy revendication yi lan la leen ci état teg teg yoon hmm. mooy bàyyi gi ngeen bàyyi ne yéen tey ngeen koy def bu subaa di ngeen dellu si lan la leen état promettre ci li ngeen doon kaas ne dana leen ko def ba tax ngeen bàyyi seen grève gis nga ne boo xasee ba am benn objectif ci grève na nanga moom a tax di grève sëñ Fallou xanaa dina baax ci li man ne dama xamoon bokk da ne ci bi ba baax si solution de am man laa xamoon ndax enseignant yi dañuy def li ñuy wax préavis de grève waaw ab diggante buñu paree def li ñuy wax grève générale grève générale bu ñu ko defee dañ naan dañu xàpp ci bis bi genn wàllu bis ba yàgguñu la ñu def benn ba yàgguñu def ñaar ba yàgguñu la léegi nag grève générale la ñuy def boo xam ne na c'est indéterminé lu dul dañoo am. solution ah waaw durée indéterminée. Hmm. lu dul dañoo am solution ci li ñuy xaar. lenn rek moo tax moom ci nga daan gis mu mën cee nag mooy ministre bi wala président bi wala sax euh, bonne volonté yi wala ñi nga xam ne sax ay médiateur lañ dox dox jog lijjanti ci diggam ak gouvernement pour ñu jox leen sax ne leen ay ay ñu jox leen ay ay ay dig. Hmm. ne leen ay ah, waxtu sàngamkat bu ñu ci ay gerte daañu leen taxaw ci seen i jàmbat. soo waa nga mën a waaye ñoom ñoo ngi def tournée sans presse. wax dëgg yàlla man li ma bëggoon ñu def ko te mu gënal ma te ma xam ne bu ñu ko defoon mooy li gën mooy ñoom dañoo waroon a fexe teg loxo nit ñi lu leer lu tax ñu grève waaye bañ ko defee sax nag ba teguñ ñu certifié kii rek euh, teguñu premier pas tamit. waaw ah, premier pas bi bi nga koy teg. Ah. da tax nga war ko bàyyi. mooy da ngaa war a am c'est le minimum sax boo amul yow li nga bëgg euh, sur l'instant mais nga am dara ci ay promesse ay dig yoo xam na yow dana la promettre yow nga mën a bàyyi ne naa bali ndax lii ak lii ak lii waaye jékki-jékki da ngay bàyyi boo xam ne yow amuloo ci benn kii léegi nag nga ne da ngay euh, beru activité gouvernementale yi hmm. xam nga le président de la république Bassirou Diomaye Faye ah. ak le PM ñoom damaa gëm ne ñoom yëguñ ne yéen yéen a <laughs> ah, ah, man loolu mooy li ruñ ko mën a yëg di wax dëgg yàlla ñoom day hmm. bu dee ñuy sant lañ waruñ ko mën a yëg bu dee nit ñi sant yàlla seen borom lañ waruñu ko mën a yëg su dee nit ñi jaamu yàlla seen borom lañ waruñu ko mën a yëg bu dee nit ñu gëm yàlla itam gëm gu wér waruñ ko mën a yëg ndax ñoom day wax dëgg fi nu nekk war noo xam ne kenn indiwu leen fi ku dul yàlla yonent bi day sol na mu ko am gàddu jaaseem rassemblé ay ran <coughs> rassemblé ay saxaabaam mm-hmm. préparé dem Uhud di xeex ade préparé dem Hunayn di xeex ba demee xaa ba tàkk coow daal di bëri yonent bi daal ñaak suuf daal ne saahatil wujoo sànni ko mu mel ni ay bala fetal seen seen xar kanam ñii da ca dee ñii da ci toxoñ saxaaba yi dina xaagaaga bañ jaax xam nga bi ñuy demee lu ko yàlla wax hmm. gis naa ngay tibb wax saahatil wujoo ndam nit ñi daanoo ko dee waaye woo maa ramayta sànni woo de gis ramayta ba nga jamee walakin waaye yàlla walakin allah ginnaaw waaye yàlla ramaa moo sànni moo jam hmm. kon yonent lan moo tax mu san buum gàddu jaaseem bu suufam jàng baate alquran sànni suuf sa mu am mu mu mu am uh, effet ci ñim jàkkaarool di xeex ak ñoom yàlla pare na ko loolu du yow kon ñoom lii ñu am nii ginnaaw du kenn yàlla la fekk du kenn yàlla nag kon ak cant ak cant ci des ak cant dëgg-dëgg ak cant na xam nga lu moom mooy mbir yi nga delloo ko yàlla delloo ko yàlla mooy nga bañ cee walaa wala yaxaafu na law matalaay mooy bañ cee ragal. wala ku la xas wala ko la yedd wala ko la wan gannaaw li feeg li nga digg woon ak yàlla yaa nga ca yàlla def na yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla gis gis nga sëñ Fallou yàlla musu la jëflante ak nit moom lay yàqu di jógee ci moom waaye laa lay sot mbir yi di jógee yàlla yàlla man musuma sekk ak yéen dara benn jamono wala benn waxtu sela sen saa ma soppiku loolu la yéen yéen a ko jëkk def man man ma door a fekk ci la ngeen def hmm. yàlla moo wax moom yàlla moo wax loolu inna allah laa yuqayyiru maa bi qawmin hattaa yuqayyiru maa bi anfusihim yàlla mu sens mukk ne feeg yéen sens ci seen position tanoon seen position mooy ñu jàppoon ci yàlla ngeen wéeru ci yàlla yéeru ci yàlla mooy bi presse bi nekkee mel nañ mel daan def lañ daan def di leen wax lañu leen daan wax ko daj di ko def nag ci nag façon boo xam ne façon bu ñaaw bu salte bu kenn mënut a misaal boolee nag boolee ak yeneen i force yoo xam ne ñi ngi seen kaw du leen war a gën a xëy bu dugg bala xam ngeen loolu yi bu doon palais di dafa yóbbu nit yéen du ngeen dem palais bu doon pexe fa yóbbu nit dégg naa le président de la République wax ko nii fii ma toog def mu mel pexe ngir toog fi boo doon pexe fa yóbbu nit yéen du ngeen dugg boo doon xam-xam ak mën-mën du ngeen fa dugg kon kan moo leen fa yàlla yàlla nag mi leen fa dugal mooy ngeen gis yàlla yi kese wallahi wa rabbil kaabati kaaraange ki gën ci ñoom kaaraange gën a wér ci ñoom ba gën a dugg ci moom mooy ñoom ñu ñu des yàlla yi kese te ba lépp des yàlla yi kese nag mooy lii rek ne ci leen ni ñu waxoon nit ñi te te te sonn ilaa yawmal xiyaamati presse boobu hmm. ñoom bu ñu grévé dañuy boycotté activité gouvernementale loolu kañ ak loolu kañ la du tey démb ak tey xuma. Ah, waaw démb ndax yëg ngeen ko yéen waa Sénégal ndax am na lu ngeen daan xam ci gouvernement bi da xamu leen ko ministère yi bi ñëwee Touba ndax site internet bi couvrir ko wan leen ko. yi bi ñu ñoom sax ñu ah. ñoom ci ministère yi. Ah. <laughs> moo tax daal dëgg-dëgg la yàlla xam doone daal. Ah. mais li nga xam ne jógtee nañ ko est-ce que tamit du ñaawal deru euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, réew mi. maanaam ci ci ci au niveau international parce que bu ñu gisee ne lu masul am. Euh, wala bo bu fekkee mas naa am tamit yàgg na muy ñu presse bi yëpp booloo def li nga xam ne moom mooy côté activité gouvernement def journée sans presse est-ce loolu tamit du ñaawal. xam nga dañuy wax euh, am nga dafa am dafa am ay kuréel yoo xam ne ay. organisation ñoom président mais nangu leen recevoir. voilà président déggu leen dara. ñoom ñoo ko soxla. waaw moom moo leen soxlawut xam nga woon wala. da xam nga am na ay organisation internationale. de hmm. la presse. waaw ah. xam ni presse la ca bokk ci liñ ci jàngale ñoom bu dee dégg naa leen. Hmm. éthique ak déontologie. maanaam mbir mu mën a doon bu diggee nga jàngat ko boo ko jàngatee pare. boo ko jàngatee ba pare. Ah. nga dox ci sa nga dox ci sa xaqullahi taala. Hmm. tey jii bu ñu nee journée sans presse da nga yaakaar ne opinion internationale bi ñoom dañuy dikk taxaw ne kon léegi Bassirou Diomaye Faye moom moo koy tëj moo koy tëj journaux ya. Bassirou Diomaye Faye dañuy journaux yi ñoom ñu moom journaux ñoo ko tëjee seen bopp te ñoom ñi ngi loo xam ne fa lañ jëm. Hmm. xam nga ñoom Bassirou le président de la république ñoom ñoo ñoom seen seen presse ñoo ko nar a seen bopp te toxam du ci du ci tàq du ci laale. Hmm. aawa ah yi ñoom ñoo tudd la ñooy mbalax. Hmm. cest dire mooy ñoom bu bu génnee ñu ne luy problème bi ñu ne dañoo fayul impôt xam nañ ñàkk fay impôt nam mel te France xam nañ loolu. Hmm. xam ñàkk fay impôt en tant que entreprise nam mel ca kon ñun li ñu uni kon ñun li ñu Nations Unies daa wax ne maanaam pays bi gën a bëri gar Sénégal ca la bokk kon da nga xam ne ñii ñu tax Macky Sall ne fi xëy ñu impôt te kenn defuñ journée sans dañ fi Macky Sall nekk te amul lenn jàmbat mu jógee fi weer kenn ku di coow di tëgg sa gémmiñ kon day mel ni ñee dañoo nangu woon corruption te ñun nanguñ corruption uh-huh. léegi nag bañ gëñ bañ corruption su fekkee na ñoom presse internationale bi couvrir nañ yëf yi ñoom dañuy motif bi tax xam nga loolu presse da koy def bu bi tax nga nga grève loolu lépp day amaale ci ci xabaar bu dee jàll léegi motif bu fekkee ne yow respecté wuloo ku ni muy jàll ak bu jàll la yow wan lay la nit ñi teg ci teg ci taabal te amuñu ko loolu donc gis nga tey nag gis nga Sénégal bu fekkoon ne maanaam li presse bi di wax waa euh, organisation internationale di ko jàpp hmm. mooy li impact ci réew mi après kon Sonko du ñëw au pouvoir hmm. le président Diomaye du ñëw au pouvoir parce que presse euh, international bi ak presse locaux bi presse nationale bi hmm. ak sax organisation internationale bi amul ku ci andoon nag Macky a ak état Sénégal amu kon ñoom ñan lañ desoon muy sénégalais sénégalais nag ñoom bu vote jotee ñooy vote ba xeex jotee ñooy xeex manifest manifester jotee ñooy manifester hmm. boobu jàppale lu ci aju ak jàmmal ak def débat yu baax seen i njiit boobaa ñoom la ñuy xaar te ñoom ñu koy def ci ñoom kon ñoom luñ manqué dara. Hmm. mu ñëw ci Bougane Gueye Dany dégg nañu li nga xam ne wax na ko ci Walfadjri nee na Sonko da leen di fay euh, ba tuddal leen sax ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk biir wal fajri ay eh, tan ay saroñaar tudde na leen koy ñoo xam ne daanaka buñu ñu waxee rek dañ leen a wax lool ba eh, waral li nga xam ne mooy grève bi gaa yi doon def wal fajri bokku ci eh, lan lan nga déggee waxam jooju moom waaw ah, wax ji wax la yoo xam ne li wax léegi rek laa dalila alay hmm. na wax joo xam ne boo waxee du jël benn preuve teg ci saabal ci hmm. te wax gis nga bu départ ci koy wax bul def attaque direct ci ci wax wax ji ngay jël maanaam jàngat ko ba noppi soo paree nag nga door a wax nag li tax kiy wax di wax. Walfu télévision la boo xam ne. Ah. dynamique bi mi a jël mosu koo sensé depuis daal depuis des années. Hmm. mooy fi Abdoulaye Wade nekkee Walfu mi ngi koy gën a xeex ak moom. Hmm. Abdoulaye Wade nag métti métti moo démocrate. Hmm. Walfu daa ko teg lu ne waaye teewul sax. bu koy publicité loolu di ko jox a ne ak di ko defal ba wàll fu Macky Sall ñëw daan ñëw daan jàppale Sall nag nga yóbbu ci ay plateau hmm. ba mak xëy jël pouvoir bi seen patron si Lamine Niass xëy def déclaration boobu jël ay jël ay position fexe ne moom balaa am jàmm Walf dafa disparaître. Hmm. mu naan néew ko doon nag mais yéen ñëpp a ngi nii Walf am na ay ñeenti at ak yoo xam ne. Hmm. Walf jàpp naa ne kenn ci Sénégal si déedéet mu mujj sax nag di libéré ay journaliste ngir ñàkk lu mu fayee ngir ñàkk lu mu fayee ay salaire am. Hmm. mu mujj dama yàlla baal wax boo ko jàppee daanaka daal di si doof sax programme bu normal ndax amatuñu ay journaliste yoo xam ne ñoo diri si débat yi wala ñu koy animé. Hmm. léegi nag biñu ñu avancé ba ci jamonoy Macky Sall mii nag egg na ci sax lii may wax nii doyatu ko muy néewal ko doole ci publicité yi mu daan am néewal ko doole ci di éditoriale am waaye yëmu ca daa mujj tëj semaine laay wax mu mujj ko semaine ñu jógee ci mu tëjaat ko un mois ñu jóg ñu jógee ci sax Macky Sall nangu licence am. Ah. jàpp sax ay journaliste am ñii mu impressionné leen ñii bu leen impressionné wu tey mu yóbbu leen brigade de recherche ah, brigade de recherche sama xarit Pape hmm. am na fa ay quelques jours. Hmm. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Walf itam am ay journaliste yoo xam ne journaliste yu journaliste yu journaliste yu am ay journaliste yoo xam ne journaliste yu brillant lañ. Hmm. yu am ngor itam. ñooñu di dund ci situation boobu ñu nekk ba tey ñu ànd ak ñi gënoon néew doole ci réew mi te ba bee jamono ki amoon xaalis mën koo joxe muy Macky Sall la. Mm-hmm. te boolem bu nangoon ànd ak moom joxoon na ko. te booba ñoom li ñuy subir nii ci ba bee jamono moo gën a sedd li wal Walf daan subir te boobee Walf liñ nangu ñoom tey su ko fu nangu woon lan doon subir noonu dootu ko subir. Mm-hmm. kon tey naka ngay bañee tey bu ëllëg ëllëg naka ngay bañee lii tey bu ëllëg nga nangu. ànd ak Macky képp ku ko def amoo problème. ba hmm. problème booba si may mënul amul problème booba booba noonu leen fi ngay fanaan te boobu moom ànd ak Macky Sall te ànd ak képp moo teewoon ay problème am jaxte mosu ko def mu ñëw nag profité moom Walf ci benn situation boo xam boo xam ne ñoom presque ci ñu ko créé lañ bokk lañ bokk. Hmm. mooy benn leader politique bu ñu bëgg a néewal doole ñu naan sawtun man laa sawtu la ni ko wa Al Jazeera di waxee Walf di wax noonu la voix des sans Hmm. maam kaddu ñi amul kaddu kaddu ñi amul kaddu. Hmm. ñoom ñu signé ci situation bi ñoom ñu dund di jëfandikoo lu leen seen YouTube dafay Cheikh Niass wax na ko Cheikh Niass nee ci suñu seen YouTube bi ci la pour mën a fay impôt hmm. suñ seen suñ suñ bi ci la ñuy sukkandiku pour mën fay salaire te loolu TFM mi koy def. waaw tàmbali na ko. TFM mi ngi tàmbali sukkandiku seen YouTube am ngir barke de moo jaay émission ngañ Demba Touré xam nga ne ñoom dañoo crypté woon seen signal bi. waaw seetlu nga hmm. xam nga lu tax ñu crypté ko. wala dañoo bëggoon nit ñi jaar YouTube seetaan ko parce que xam nañu xam nañu ko am audience bi. trente cinq mille vues direct. Hmm. trente cinq mille vues yooyu lañ soxla. après tey boobu buñ ko amee ci keneen am ko ci keneen am ko ci keneen boobaa la fa Walf daan sukkandiku ba mën a fay ay salaire feneen ci lañ toll ñoom. Hmm. Walf ba tamit tey jógut ci lool ndax ñoom ñii di wax nii nii nii. di wax sur ne sur ne sans presse. ñoom ñëpp ku plateau boobu euh, euh, kii la plateau la boo xam ne genre calendrier la. daanaka ñi fay jaar ñoo fay jaar chaque euh, chaque année calendrier même calendrier bi. waaw dañ dem mosuñu ko ci gis. mosuñu ko faa gis calendrier la. moom calendrier la daa am rang boo xam ne toujours ñoo cay hmm. am na xam ne nangam yoon am na xam ne mën na caa toog yoon par année. ci hmm. beneen par année kii cinq fois par année kenn calendrier la comme ni nga ko waxee. te nag bu ñu fa indee ci ay vie lañ toll malgré li muy wax lépp arrangé wu da nga semence de cible naan ko ah ngañ dem ba ay nga de li ngay ay parce que xam nga mu ngi hmm. ne itam mi ngi satisfaire seen seen YouTube. léegi nag léegi nag ñoom problème bi ñu am ñoom ba ne dañuy grève ba nga ne actuellement bu ko raw Walf am na ko. Hmm. amu ci guddi kenn koo xam ne ñoom see matériel tàkk na ba jax tàkk te Walf tey yi benn ñaari studio la am. waaw hmm. studio dañ koy dëbb dëbb man dem naa fa ma fay invité. xam naa fa bu baax bu jëkkoon fañ ma daan invité ma fay toog di a ak fañ may invité léegi. Hmm. kon ñoom moo leen ëpp ay problème fop moo leen ëpp ay problème fop beneen bi ci dolli ki tam mooy Walf bu dee côté impôt bi ñoo bokk même ñoom lu ñu amee ci bor ci impôt mais Walf ma dafa dem def ne ma man nangu na maa fay daanaka may defal moratoire Walf moom ban intérêt la xam nga Walf ci misaal moom dafa dafa miin xiif ak sonn ak ñàkk ak jariñ hmm. moom moo tax ñoom bu ñuy gerew na ñoom xiif ak sonn. ak mar ak ñàkk ak jariñu gi ñu bëgg dugal ak fay lempo jaar normal dans la règle moo tax ñu bëgg grève Walf xamul loolu moom Walf Walf moom miin na ko waaw yàgg na koo dund yàgg na koo dund kenn du ko ci fekk te kenn du ko ci fekk moom loolu hmm. ah? ba ba toll ba toll ci farmanko jenn waaye jógee ca taaxo yi ñëw ah hmm. xëy mel nam xëy sonn daal dina bàyyi beneen booy bi doon dem ba toll ci farmanko nañ ba tool yi moom dina ko nangu <laughs> parce que dañoo sonn du ko nangu wal walf moom lool la xam tradition moom loolu la hmm. pour nga mën a expliquer mbir mi ne walf ñoom li tax ñoom nangu ñoo bokk ci grève bi moom ñoom lii ñoom ñu nangu seen tradition la jeex seen tradition la moo ñoom affronté a gouvernement hmm. bu tawee ñu am luñ ko jox bu tawee duñ ko am bu tawee ñu am luñ jox seen i journaliste bu tawee duñ ko seen i seen seen i salaire lépp pour mën a dund ci jàmm ak salaam kenn bañ leen a xamal bañ a jël naan da ngay fay kii ay deux millions fay kii trois millions presse boo xam ne xam nga ay publicité toll ci yaa ngi sukkandiku ca nangu journaliste yi jàmbur nangu journaliste ay proposition bari yoo di génn xaalis bu bari dégg nga jël ay billet d'avion di ko jox ay couvrir ay événement yoo xam ne yow ña fa nekk rek boo doon boo doon boo toogee wala nga toog sax ah. seetaan léegi mën am vidéo yi mën koo defar ni nga ko bëggee du dugal comme en tant que information hmm. nga ciy fay alal yu bari ngir mu déplacé wu deux millions trois millions ci benn semaine loolu xam nga ne boo ko def ah. convention yi ngay am say xarit état bi ak fonctionnaire yi ak li ñuy wax om d'affaires yi moo la ko may. Hmm. ndax tey bu demee ba état bi nag changé. te fekk wal fu moom doxee wutoon noonu nga ne ko léegi kaay ñu faju kaay ñu faju ci wal fu moom wér di nga moom moom miin na ko miin na bi metti moom yow yow sa bopp bu jékki-jékki na teel lu na nga dem pharmacie naa lay garab man ki ko dëkkee nag moom daanaka jàngoro ki dem ba sax dootu ko sóoraale. Hmm. ah loolu daal euh, moom mooy. mooy expliqué mbir léegi nag mu des nag waxi bugaan. waaw kay léegi nag mu des waxi bugaan xam nga bugaan. Hmm. yow patron de presse nga yor nga presse boo xam ne à tout moment nit ñi dañoo gëm ni boolem ku fay nekk da lay toog di la bàkkal say maam ak di la tàggal say ak di la xasal sax président Sonko ak le président de la République Bassirou Diomaye Faye suñ ko deful rek yow da nga leen daal di bu koo ci dàqule di nga ko xatal xatal mi boo xam ne moom dem moo koy gën a toog. Hmm. te loolu miin nañ ko ci yow. Hmm. miin nañ ko ci itam say journaliste yu bari fa jaar départ bari lool te nag sëñ Fallou. Hmm. kooku ñoo faatu Abdou Ndiaye Fall. del ah. xool seentul départ am. Hmm. bëgg naa dem itam ci ay ci ay kàddoom laa ko déggee. Ah. parce que tale bi mu nekk actuellement dafa exercer hmm. métier gisatu fa ay nawle te mi ngi préparé départ am encore. jàngat naa ko parfois ñu ko ci plateau yi waaye day jàngatee noo xam da nga xam ne ñi ngi ko boole mu taxaw ko ñoom plateau nawlu wu leen ci dajeeg ñoom. bokkuñu niveau bokkuñu niveau. bokkuñu xalaat te it bëggul la doxee ñoom ni ñuy doxee. dama mi ngi préparé départ am yaay itam nga ngi moytu bu baax li daal euh, asma ah. Xadija yaakaar na ah. dal ko mu nga xam ne moom benn barab dong lay mën a dëkk fudul foofu mënul faa hmm. mi ngi ko mi ngi ko ma sóoraale la gis naa ne à tout moment moom tey jii suñ ñu ko woon kaay dem itam mi ngi sóoraale ne ab daram du yàqu ci fi mu nekkoon hmm. léegi nag bëggaan bu fekkee yow yow yaa xam yow ñoo ñooñu loolu maanaam jëmmi rab boobu nga tudd sax te sax rab boobu lool waaw lu muy maandu loo xam ne dafa des sax ramaxul xeex moom lu déewut ba wet du ko lekk. waaw lu déewut ba wet du ko lekk kon moom day men lu mu lekk leew na kon bëgg leen tuddee ay booba nga leen tuddee na yéen lu ngeen lekk leew na. Hmm. tan mas nga xam nga ne tan ak ceeli bokkuñ. waaw hmm. tan ak ceeli bokkuñ ceeli day këf. Hmm. yow bu gaan yow xam nga ne yow bu waawal fajri di ay tan yow ngay la may bañ a tudd <laughs> ndax yaa ngi nii yor. Hmm. yóbbanteb jàmbur nangoo koo joxe. waaw ah. waxoon na ko nekk sàcc a nekk fenkat wala waxoon na ko di. ah, ah nekk sàcc moo gën na nekk fenkat. Hmm. Ah, am na ay gars yu. sa façon d'opposition euh, sa façon d'opposer ni muy opposé woo jamono bii lan nga ci jàngat. Ah, waaw li ma ci jàngat rek mooy mel ni man rek la. mel hmm. man mooy nit ñi bu fekkee saa yu wax jotee euh, dafa mel ni daal ak mën nañ ci boole ceen bokkum ak ñeneen ñoo xam ne jamono yi ñu ngi. la ñu am muy jeunesse bi mel nañ daal Ousmane Sonko eh, ak. Eh, waa Pastef jël nañu réew mi léegi daal espace vide moo fi am léegi nañ ko xëccoo ji. très bien yow moom dëgg yàlla. Hmm. Euh, comprendre nga situation bi mu tëddee. boo sax nit ñi fi mu toll mooy existence politiquement. Hmm. dans la euh, bloc d'information nga xam ne ku tijji moom gis. Hmm. loolu la soxla. en attendant nii nii. loolu la soxla moom TikTok foo duggee gis Bougane groupe WhatsApp boo duggee gis Bougane hmm. YouTube boo duggee gis Bougane foo duggee la gis Bougane moom foofu la toll soxlaa gut loolu hmm. dégg nga boo demee ba réussir structure boppam nag ci média yi da nga xam ne moom lu boole ko hmm? su boobaa nag nit ñi ñooy intéressé wu ci Bougane mais boobaa nit ñi bu ñu intéressé ci ci Bougane yi nga xam ne ñoom jamono yi bu mbaay mi ak riir mi la ñu xam wala ñu yëg wala ñu sentir lu politique ñoom mën nañoo am ci moom su wax Euh, aussi itam situation bi ñu wax ay mécontent mën na ñoom ci bëggaan si wax ak ñi nga xam ñoom ay population lañ loo xam ne ñoom ay système lañ dañuy bañ ànd système muy la président de la république ak la PM premier ministre Sonko ñun itam nekkaat ñoo xam ne ñoom dañuy dem féeteeg làng ngir gis nañ genn kuréel muy xeex seen xeex seenam noonu ñu dem ngir ah, ñu dem ngir adhéré foofu ngir ngir a leen combat Mm. ñoom ci foofu la ñuy as foofu la ñuy espérer wu loolu mooy kuréel ga nga fi déggoon ay jamono ñu ànd di wut député. Mm. ñoom beneen beneen système d'opposition. lañ doon jéem a chercher sama waxoon lu ko fii bis. ne la ñoom France moo leen créé. Mm. France moo dem ba xam ne système d'opposition système politique bii Macky Sall yor baaxut a mun a naa wut ñeneen ñoo xam ne dañuy tuddee ay borom xam-xam. dañuy tuddee ay nit ñu maandoo def transparence ñu créé leen benn forme boo xam ne. bu leen daw ñu gisee dañuy jàpp nañu ay opposant lañ yoo xam ne ñu sérieux yoo xam ne ay a lañ ñu bëgg seen réew lañ ay anti système lañ mais di ko defee noo xam ne dina dëppoo ak ni France bëggee ku ñuy doxalee. Hmm. effectivement Sonko génn wax ne képp ku ngeen gis muy opposé ku dul bi yeewi askan wi xam leen ne kuy jàppale Macky Sall di ko nëbb. Hmm. ba yor na doo ko wax ci waxam jooju daal ne yow egg nga foo xam ne foo waxee say wax ñëpp jàpp ko ngay sukkandiku di référé wu yow ci sa kaddu ak sa daraja ak sa dayoo ngir Eh, stigmatisé aw ay nit yoo xam ne xañ ba kenn tudd leen kenn daas tudd leen kenn woteelu leen Bougane ci catégorie boobu la la soxla waaye nekkul sax benn saaru nekkul sax benn saaru maam rànkeñe hmm. wala soxor wala dara loo xam ne moom la jàpp ci ñi ngir mën a jàkkaarloo ak ñoom maam li bëgg mooy ginnaaw bukki mbaar wala bëgg a nga am existence bien vrai que politique exister daf cee bokk mais booy exister tamit nga exister ci lu baax loo xam ne. yow ci ay discours buñ ko buñ ko indiwaatee. li ci bari li ci bari ay rectification lay am. xam nga problème bi waaw su su boobaa ki ko gis su boobaa ki ko gis mooy ñaar. parce que da ngay exister ci waaw waaye ki ko gis mooy ñaar su boobaa di ngay wax ni ah. am xam-xam te am xel xam nga. Hmm. ak ki jees nga am na xel am na xam-xam waaye Sonko la àndal. waaye ki bëgg a ànd moom moom day jël benn message ko wéy gën a xam ne xam ne loolu xam nga tey bëgg a bu ne maanaam saako ngooñ taamu booy lu mu daan jar. Ah. xam nga sax loolu hmm. xëyee di wax yoo xam ne mooy loolu. xam nga loolu du débat. tey ñu bëgg ci mim réew wax dëgg yàlla bu jërutoon sax man ak yow ñu toog di ci débat. Hmm. mais mais mais ni mu doxalee moo tax ñu dem bay débat ci moom mais kenn defee nekkul nag. waaw ah. li nga xam ne espace vide boobu nag lañ la bëgg a bëgg a bëgg a waaye Bougane damaa jàpp kon benn adversaire la am. Hmm. te waa te jàkkaarloo adversaire boobu bii ñuy wax parrainage mbër mu ko jaxal la mosu ko daan. Hmm. pourtant mi ngi wax ne euh, législative yi di ñëw yaa ngi wax léegi tas euh, législative yi tas. Euh, assemblée bi pour créer waat beneen moom bokk na ci li mu waxoon mooy dina seeti ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy ay acteurs politiques yu fi nekk. mu ngir mu coalition ñoom mën am euh, majorité ci assemblée nationale nga xam ne dinañu mën a def li nga xam ne mooy cohabitation. waaw loolu moom du mu garaaw ndax PDS 2012 biñ daanoo. slogan biñ njëkk a yëkkati buñ booloo mënuñoo sonal kii. kan ñoom ah déedéet gars yi seen ma waxaat la. Ah. bu ñu demaatee élection bu ñu demee sa élection législative. Hmm. xam nga pour cent lañ leen jëmee. déedéet waay maa la pour cent la fa lañ leen di yanu daal. soixante-dix pour bari nañ si. bañ dem ca ba ñëw loolu ngay gis de dana la jaaxal lool nag. ak gaa seen manipulation gaa yi seen manipulation yi ñuy def nii. yi ñu nekk wax yëpp. akalee na gën a xañu nit sax. gis nañ li ñu nekk di wax ak. na gën a xañu nit. xam nga marchand ambulant yi ak. waaw waaw waaw marchand ambulant moom. yëpp ak état bi lañ ko jël taf ko ci kawam. voilà mais xam nga li nga wax. léegi moo ko àtte mooy ah, mooy opposition. avec discours discours da ngay wut benn discours boo xam ne. Hmm? mu mel discours bu ko mu convaincre ko hmm. borom xel déggee mu convaincre ko waaye discours boo xam ne ku ko dégg xam ne waxi gone hmm. ku mel man dañoo yooyu tënku ma moom eh. ah oui hmm. eh, ñàkk jeexal te du ma la laaj ci li nga xam ne moom mooy wàllum voile yi nga xam ne débat bu jógoon na fan yi Ousmane Sonko wax na ci euh, wax ne mënatul nangu fii Sénégal ab école ñu fay tere euh, xale bu jigéen mu ginnaaw bi tamit dégg nañ Abdou Latif mu tontu ci ak tontu yoo xam ne tontu yu dëgër la ñu ci bari di ko la lan nga gisee li nga xam ne wala jàngat boo xam ne def nga ko ci mbir moomu. xam nga Abdou Latif Ndiaye euh, dafa am problème man hmm. en tant que politicien. politicien waaw. Ah. Hmm. ak benn politicien. waaw ah. bu ñuy wax Ousmane Sonko ñaari politicien. politicien bi dafa wax. Hmm. politiquement waaye constitutionnellement. waaw constitutionnellement ah la la PM wax. PM ah. daf ne. mënuñu hmm. nangu maanaam nit ñu koy dara jàng parce que moom lii la doon. Hmm. wala nii lay solo wala nii lay nii wala nii la melokaanu. loolu mu wax noonu. mi ngi mel ni day man ma ne alxuraan nee na nit ñi au lieu que ñu man wala man ma dudd benn aayaat. au lieu que ñu ne moom ay alxuraan la wax ay la ñaan dégg ngeen ne sëñ Modou wax fekk man samay wax Sonko li mu wax Sonko mm-hmm. moo ko wax wala constitution Sénégal moo ko wax. Mm-hmm. loolooy laaj bi. te ku xam xam nga ne constitution bi daf ne jàng école publique école njàng mi lu ñëpp yam la du ñu tere nit daa war a jàng ndax lu doon tijaan. école publique école publique. man déedéet waxuma privé par exemple mooy njàng mi xam nga école mën na tuddee ak privé yaa ngi mais jëmi njàng mi moom loo xam ne action gouvernementale la moo ko moom hmm. dañ ko war a def ko ci kay def ko ak constitution constitution bokk ci lii li ko li encadré muy ay loi ah. loi yi ak texte yi dafa wax ne bépp école wala jàngukaay bu mu mën a doon kenn amul droit ne nit ki da nga di julit wala da nga di chrétien wala da nga di protestant wala da nga di non inscrit ku gëmul dara non croyant hmm. dégg nga tax na yow mënuloo fay jàng wala da ngay soloo nii di sol caaya di sol baylat wala da ngay sol grand boubou di sol pantalon wala da ngay sol ab ab jàllaabi wala da sol ab sip wala tubéy moo tax mënoo dugg jàng loolu suñ constitution bi daf ko raye def ko aaye am déet hmm. du loolu la PM wax PM kon moom dafa fekk téere bi mooy téere bi ñu tënk muy dañuy wax ndayu sart réew mi mu jël ci France nag loolu mënee su nangu ndax ndax mënee du kenn du alhamdulilahi rabbil alamin mooy en tant que man am naa fu ma jaar ngir jàkkaarloo moom mm. teg ko ci turu diine Sénégal yu bari daana ji pièce boobu képp koo xam ne xam nga Pastef ak ni muy doxe xam nga ne militantisme li mu ci am ci ay chrétien amu ci mm. benn parti bu ko am fii Sénégal mm. ñaar moo tax benn mooy chrétien dañoo nuroo ak jullit yi ci gëm développement beneen mooy chrétiens yi dañoo gën bokk ak ñoom ñi ne ñoom Ousmane Sonko xam nga wax baax. ñoom hmm. Ousmane Sonko ñii nii seen dë foofu ñu dëkk muy Casamance bari nañ fa lool macha allah mooy fi ñu gën a bare ci Sénégal te ñu ko gën a soutenir ci Sénégal ginnaaw ba Touba gi wéyee ginnaaw bu Ndakaaru gi wéyee ginnaaw ba Tivaouane gi wéyee. Hmm. yaakaar naa ne Casamance la am voilà doy na loolu man sa doy na loolu man man sëñ Fallou. Ah. ni ma gisee rek mu wax mooy lim gën a wax ñu ñee Ousmane Sonko lay waxal lam wax Ousmane Sonko tuuti la. Ah. lam ca dolli lépp mooy wax suñu waaja Muhammadu Rasulullah alayhi salaatu wasalaam hmm. mooy ni Xasaanu Saabit waxoon ne wa man yaxju rasulallahi minkum wa yamdahu wa yansuruhu ku fi toog di xas yonent bi wala nga di ko wala nga xëy sax mu ne kaay xeex laa am nga jël jaas ci xeex nee na lépp a yem yéen a xam bu la neexee dimbali bu la neexee xas ko fa inna abiy ma waale dasi wa xirdi li xirdi muhammadin xankum yi xaawu hmm. sama yorum nday ak sama derub baay jël naa ko jotee ko derub yonent bi kun fet na fet naa fet sànni mu dal ci derub yonent bi rek waay sama gannaaw nday ngi nii sama gannaaw baay ngi nii na ci gi daal Hmm. buy dee jotee ma ànd ak ñoom dee te yonent bi alayhi salaatu wasalaam kullu musibatun jalalun hmm. moom nag dafa am lu ñu jàngaloon te ni nga ne ci moom li mu ne gëmul xeesaa bi ñu ne moom hmm. lañu yéegal ko asamaan loolu ñun xam nañ ko bu wér loolu amul benn chrétien bu ko gëm waaye chrétien seen ñàkk koo xam nga lu moom ah. lu conserver seen diine pas-pas la boo xam ne conserve diine la waaye weddee woo ko diine lislaam amul benn jullit itam bu gëm ne Iisaa dañu ko daaj ko xam nga xam nga lu tax ñu ñàkk koo gëma préserver protéger seen diine waaye du lañ koo defal dañ ko bind wala dañ ko yaxal ngir ŋàññi diine christianisme hmm. yàlla dafa wax ne ñe ba deux mille vingt quatre ci mois d'août yàlla wax loolu de Abbé Latyr Ndiaye dana toog di wax loo xam ne maa lahum bihi min ilmin xamu ci dara illa tabaa zanni day wax ngir teg jortam képp yàlla wax loolu de hmm. wa maa xataluuhu Isa kenn rëyu ko hmm. wa maa salabuuhu yaqiinan walaakin subbiha lahum bal rafahu wa kaana llahu xasan xakima hmm. kenn xatu kenn salabu ko kenn kuraawu ko kenn rayu si ci moom ak dellu seem fii ci dunyaa wax la wax ju siiw la te wér loolu la Seydina Moussa Ka alayhi salaatu wasalaam radiyallaahu taala anhu wax à part nag léegi ñun Moussa ñun Iisaa boog laay wax ak yonent Yàlla Muhammadu c'est la même ci ñun weddi Muhammadu rasulullah alayhi salaam ku ko def di yéefar ci ñun hmm. ku gëm Muhammadu itam weddi Iisaa di yéefar ci ñun ndax loolu la ñu yonent jàngal hmm. laa nufarriqu bayna ahadin wa qaalu sami'naa wa ata'naa ghufaanaka moom du jàqale benn yonente ak borom waaye yàlla dafa wax ci ndayu ji sell ja ñu ngi koy waxee ñoom Iisaa ale eh, Maryama alayhi salaatu wasalaam waskur fil kitaab Maryam isan tabasat min ahliha makaanan sharqiyyan hmm. ñoo ne yonent bi maa ngi lay jàngal xisab Maryama bintu Imraan bi mu génnee di doxantu wuuti genn ak dex goo xam ne daa ca ouest dëkk ba ah. nee na bi mu demee mu daje fa benn inna mu ngi daje fa benn malaika fekk mi ngi mi ngi muur woon ba daj fa arsalna ilayha ruuxana ñu yónni ci ñun ci moom ruuxana mooy Jibril alayhi salaam moo jul ji ruuxe fa tamassala laha basaran sawiyan Jibril bi mu ñëwee yor comportement bu xale bu góor mel niñ gone gu góor gu jekk gu taaru bu rafet mm. fekk moom mi ngi muuroo boppam bu rafet boobu yi nay ju ci ak sellaayam bu sell boobu yi um na xineet yam ci Seydina Jibril ñu baal ñu ci waxin wi dafa mel ni dafa am ay sentiment ci moom mm. ci ay soxoriyaatam parce que sentiment soxoriyaat bi moo waral ëmb bi parce que booba mi ngi yor maam kàddu yàlla kalimatullaahi wa huwa yalxaahu ci xalaa batani ummi Isa alayhi salaatu wasalaam hmm. yow mi ngi am neseru sànni roox gi wara a dem ci biiru Maryam alayhi salaam ngir mu ëmb uh, yonent bi yàlla alayhi salaatu wasalaam hmm. mu daal ne ko a axuusu bi rahmaani mink in kunta taqiya la ko la ko Maryam wax bi mu ko bëggee rek daal di bëgg a kii rek sentiment sentiment wax ci diggante góor ak jigéen mu ko ba yàgg rek mu xalaat ne man maa ngi dugg ci beneen buut daal na yow mii taxaw jàkkaarloog man ak sa rafetaay bu dee ku gëm yàlla nga mos naa ci yàlla ci sa jëmm ji lool man bëgg ma la bëgg ma la ak si yàlla nag ma sore ko innama ana rasul rabbika li ahaba laka xulaaman sakiya man du ma kenn ku dul ab yonent di jibril alayhi damaa ñëw ngir indil la maanaam doom nag ana lii xulaamun wala min sa suñu basaru man nan laay amee doom man en tant que ndax jigéen teewu ma jëkkër mu ne ko dangay wax ni lu néew ci kàttanu yàlla la yàlla mën na ko fi muy waxee loolu rek surtout muy jékki-jékki biir biiram ne fodd ni jigéen ju toll ci weeram fi muy sekki sàkkaa ndax ëmb nag ëmbul sax far mat wa tàbbi ko hmm. fi muy sekki sàkkaa mad wa sax far am doom nag toog la jeex zina jur na ko fekk bi mu fi mu daanoo nii ndeysaan ba am doom jigéen ba amee doom sonn ba tëdd da jël doom ja jël ci lenn ci ay séram yi mu ki woon tëral ci doom wil na ko xulsi ilayki bi yisin nax la nga teg sa loxo mooy ki jëkk def karaama ci ci jigéen bi ak ku tàndar moo ko delloo hmm. sa loxo bi mu ne teg loxoom dafa daal di doon tàndar bu rëy meññ ci kaw mu ne ko xawal mel lu ko jaay rek ba wax kooku dafay tasaaxat alayka rutaban janiya dana wadd meññeen ma tooy meññeen mu natax moo xam ni soo ko de soo ko lekkee dana feesal sa biir ne ko fukk lii lekkal ci lantar ma ci wasra bii ndax gii nga ñëwoon droit loo jàppoo dee ci naan waxar rii xay naan na saxal dal nag fa imma tarayna min al basari ahada ahada daañ la nag ci mbindee fi loo xam ne ren rek lay doon waaye nag boo demee ca ñoom ca nit ña gàddu sa doom coow dana bari trop waaye bu boobaa considéré la yàlla digal inni nasartu lirrahmaani sawma fala nukallim yawma insiyan faatat biha xawmaha taxmiluhu qaala yaa maryam laqad ji'ti shay'an fariyan yaa uxta haaruun maa kaana abuuki imraa sawi wa maa kaanat ummuki baqiyan fa saarat ilayhi qaaluu kayfa nukallimu man kaana fi l-mahdi sabiyya mu demee nit ñi ne ko ah doom ji nga indi foo ko jëlee mu maa ko jur mu ko jur fo doom ji nga ëmb foo ko jëlee mu wax la wax la nag doom ji tey du ma wax ak kenn fa la nu ak fa la nu këram yow ma indi si yéen fa atal bi xaw ma tax mi xaal yaa Maryam ñu ne ko yow ndax di sa infariyan indi ñaaw loo xam ne yaa waxtu Haarun wax dëgg yàlla maa kaana aboo gis nga sa baay jàng ci benn ci biir a baax lool bu ma laa jëf ju ñaaw waaye xelam sax daawu ko daj ba koy def imra asaf jabaram nag sa moom moo rawatina nag moo moom moo ma tur ba asaarat ilayhi moom ndaw sa Mariam alayhi salaam junju leen ne leen xool leen xaw ma xaa xaala yaa Mariam wax leen nag ndaw liir man du ma wax ak man kayfa nukallimu man kaana nan la ñuy waxee xale boo xam ne mi ngi tëdd ci laltaayam ab liir boo amagul bis bis ni waxee loolu rek Aysa ne bëreet te xam toogoon ma inni ya abdullah man jaamub yàlla la adaani al kitaab jox na ma ak nubuwa jox ma ab téere jox na ma ab message jox ma dëggam jox na ma sareexam jox na ma fekkam jox na ma jox na ma jox na ma jox na ma di leen wax ñu dégg waa jaxal ni nabi an jox na ma ab yonent mubaarakan ayna maa kunt aw saari fa ma mën a nekk ab yonent laa lim ma diggal nag bi salaati wa bu julli jotee julli leen ku am nisaab di génneel asaka daa indi rabbi mardiya waaye du gestu ndayam na sama ndaye gi nii wasalaamun jàmmee jàmm alayya yal am wulatu waaye ma amoot waaye ma ubaxu xaya man bisub jàmmee jàmm sama nday dina am jàmm yàlla naa am jàmm jublu ci boppam fan la aaya bi jeexee da ko ne misa da ko ne daal Iisaa alayhi salaatu wasalaam dëgg dëgg yow Muusa yow yentel Muhammad kii mooy Iisaa mm-hmm. saalak Iisaa ibnu Maryam xawlul xaq lii mën na mooy wax ji doxalee jëlee ko ci muy xissa bi wër ci fi Iisaa ibnu Maryam jaar xawlu xaqi la si fi yam dona wax ji problème bi mooy sikk sàkk da ko ci gis ak werante ñi naan nii la ki naan du nii waaye nag yow lii rek mooy wax mu mooy wax ci wax lu lii fen na yàlla ne am na ndey ak am na baay yahood yi ne xam nga yahood yi ñoom xam nga luñ gëm Maryam dafa njaalo ambassade Israël ba ba demee ci ambassade nga ne ko ndax Iisaa am na baay mën a diwoo ko jur soose fu lay wax soose fu waaw loolu lay wax daan la daan njaaloo ba am doom loolu lay wax. Hmm. loolu lay wax. mooy juif lañ loolu la ñuy wax ñoom. Hmm. yàlla na yen jullit yi juif yi dañuy fen hmm. ndax am nañ am ngeen baay bu ñu wax a aadama te gisu leen dayam gisu leen baayam inna masal Iisaa inda Allaah ka masali aadam xalqahu min turaab summa qaala lahu kun fa yakun alxaqu min rabbik falaa takuunanna minal mom da ko ni am ngeen ku ñuy wax aadama seen baay xamu leen dayam xamu baayam ni ma taxawee ne aadama amal mu am ni laa taxawee ne xeesa amal mo am hmm. bi ma koy wax amal mu kun fayekoon laa wax existence am loolu rek mooy xissa bi kon dina jaadu woon rafet hmm. boroom xam-xam yi ko doon tontu yëpp ñu taxaw incité ca xam-xam te bañ a agressé diine boo xam ne amoo moom problème hmm. te yàlla teral ko nag en tant que musulman. wala tujaadilu ahlal kitaab illaa billati hi ahsan am problème ak ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab hmm. Abdullah ibnu Salaam dafa nekkoon ah foore yahud ab làbbeloon bu mag ah. maa ne yaa ngi bëgg a ah, gudd waaye ñu àggale li ah. yonent bi bi mu dikkee war Munawwar comme dafa mokkaloon tawrat ak injil ak sabuur hmm. dama ñëw ca bencum Madina moom boobu Madina la dëkkoon dafaa ñëwoon nag dëkk dëkkuwaay du dëkkuwaayam doon commerce ba ak si fa dëkk fa amoon na yëwoon xam nga bani xëy na xaar ci la bokk. waaw wax Abdullah ibn Salam. alayhi dem yonent fekk sax doomam moo fa dem demee gis ko mu ah, ci benc ma ñaa ko wër léegi moom sax day naaru Màkka. ci arab yi la bokk ma nga nee na moom yàlla ko yoon nii ñaa ngi ko wër ma rek m saam ne a ah, mu ne ko ma ko ah, yonent laa day nit ñi daawuñ ko fooyee ku borom xam-xam la daal di génn dem toog di ko xool ko xool di xool ba demam jot mu ñëw dikk toog soxna si ne ko ah nday dem naa ba ca waaja toog naa fa yàgg naa fa lool déglu naa ko nag ñëw xar kanamam rek laa la wax soxna si ne ko ah mu ne ko joxuma xar kanam koy fen hmm. xam ah, dama ko dama ko sutura xam ne kii du fen hmm. li ma ko jëkk dégg wax mooy li lan bi aw yaan dana yaa ayyuhan naas yéen nit ñi afshu salaam fu ngeen fekk nit ñi na ngeen leen nuyu wa at'imu ta'am na ngeen joxe lekk nit ñi lekk tadxuluuna jannata rabbikum bi salaam boo ko defee di ngeen tugg aljanna ci jàmm ak salaam lii de dégg naa ko ci kàddoom te lii jàng naa ko ci jërëjëf. may jeexalee docteur Cheikh Dieng xam naa fi nga jógee. docteur bi nga xam ne jëlee nañ ko fi bu yàggul ci koo xam ne euh, moins de trois mois yoo xam ne en fonction ci ONAS. Euh, waaw dafa bu gaaw googu. waaw man de docteur Cheikh Dieng. sëñ Fallou. waaw dama analyser situation am du début à la fin. Hmm. mais comprendre lu ma ko au fond. Hmm. yàlla. mais concept bi ñu ko defee diggante bu gàtt boobu. tamit waaw waaw xam nga parfois man dama gëm ne man dama bokkut ak xalaat sax ñu bare ñu jàpp ne dafa jël lu moomut man jàpp ma loolu man dëgg yàlla jàpp ma loolu man amaan la sama xalaat ndax ma xam. maanaam jëmmi euh, analyse bi ma def nii. Hmm. lu profond la ci man bu baax ci taxaw naa fu ne sama xel di xalaat waaye man bi ñu ko bi door a wàcc. gëm-gëm boobu laa amoon. Hmm. dégg nga mais bi ma analysé mbir yi après gis ma yenn réaction jóge ci pouvoir bi te ñoom ñoo ko foole man damaa jàpp hmm. day suwéer boo xam ne daa dugg ci équipe bi. Hmm. ngi dégg. waaw te du nangoo paase bal bi. laa yaakaar. cela veut mooy dama jàpp ne maanaam jëm affection ak relation ak xalaaxaat bi waram ci daal. laa jàpp ne moo fonctionné wut normal daal. fond dama fonctionnement mu normal. en tout accusation muy wax nii def na ko presque mais ci ci ci kaw Cheikh Tidiane ji. <laughs> waaw waaw man ko sax waaye gis nga ko sama jàngat ah. ko sax. laay dégluwuma war ak Serigne Touba. moom rek man loolu man xaw ma Cheikh Tidiane ji la man dama gis ne. man hmm. na nekk ci ñoom ñaar ñëpp. Hmm. loolu laa yaakaar. Ah. parce que le fait que moom tey def na conférence dal ci Cheikh Tidiane ji dèjà am na genre haine bu bu ko amal. Ah. est ce que haine boobu Cheikh Tidiane amu ko ci moom soo boobaa pour man seen diggante la ñu war mais nekkul ci république te loolu laa gën a foog nag. mais loolu est ce que mën nañ ne ñoo ñoom ñoo ko foog. waaw mbaa da mën na nekk nag ndax tax muy nekk itam nag mooy man nii di wax ak yow. Hmm. jël suñ a jëlal kenn ñàkk ci des itam ma jël Cheikh Tidiane Dieye laay wax nag. Hmm. waaw loolu nag bu dee man ni man daal moo dal Sonko <laughs> wala moo dal président Diomaye te moom la ñu war a def nag fexe ñaari nit boo leen boole ñuy liggéey mënatuñoo dem hmm. dégg nga da seet ki nga xam ne yow moo la ëppal ay parce que a amul ay xarit ay intérêt am. Hmm. te nag Cheikh Tidiane Dieye waxtaan wax dëgg jara combat bi ba mu ciy nekk booba nekk ci yombul. Ah. waxtaan wax dëgg jara te itam républicain la ku ko waaye mën a waxal borom xam-xam la. Hmm. ku waaye mën a waxal ñun ñëw na fii suñu dëkk bi na suñu aajo. Ah. waaw kon ñoom ñaar mën nañu am problème personnel waaye buñ ko amee dem nekk ci jolam te mënatuñoo dem li gën mooy nga dindi Cheikh Tidiane Dieye ndànk teg fa keneen ñu mën a ànd doxal te coow di jib hmm. jërëjëf sëñ Mourassou ñu ngi lay sant di la gërëm leen sant di leen gërëm di bàyyi sëñ mu tàggoo rek mu jeexal. tàggoo gi mooy sant ak gërëm rek di ñaan yàlla defal na jàmm ak sutura tawfeex ay fi ñu ci barke alxuraanul karim barke Xaadimu Rasuul ak màggal gi ñu dëkk man yàlla defal na ci tawfeex. amiin yaa rabbi. Hmm. jërë ngeen jëf kon di leen sant di leen gërëm di di daje beneen yoon incha allah.